voilà monsieur le maire Sénégo ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. defe naa ba tey euh, Sénégo tey lay doog di la amaat mu tombeek euh, bés bu màgg mu mel ni stade du Sénégal moom la ñuy inauguré tey ci 22 février bi yàlla dogal ngay meeru Pire waaye nga def déplacement ñëw fii ngir fekkee bés bi euh, d' abord bés bi yow yan impression nga ci am ci bésu tey. waaw comme tout sénégalais rek li muy yëg jamono ji loolu laa yëg kontaan am mbégte am satisfaction ci stade bu mag bii nga xam ni. Euh, le président Macky Sall teg na ko fi tuddee ko nit ku mag maanaam dafa def lu rëy ba pare tuddee ko nit ku rëy nit koo xam ne du ko ndaw ci réew mi di président Ablaye Wade donc li Sénégalais yëpp di yëg la rek laa yëg kontaan mbégte moo tax ma déplacé wu ànd ak sama waa dëkk ñëw fi. justement tour boobu nga xamante ni euh, li doomi sénégalais yi di bëri ci réew mi Abdoulaye Wade leen ci taamu jox ko tour stade bi xëy na ku ci nekk am nga ci sa gis-gis ndax jàppoon nañ ni ab sportif moo war a mën a yeyoo tur bi yow euh, ndax euh, da nga ci am xel ñaar wala rafetlu nga initiative bi ndax jàpp nga ne Abdoulaye Wade yeyoo na tur wi nga xamante ni moom lañ ko tuddee muy stade du Sénégal. Abdoulaye Wade yeyoo na lu raw stade bi xam naa ni président bi soo amoon leneen lu ëpp stade bi dina ko ko tuddee yeyoo na lu raw stade bi. Abdoulaye Wade il a beaucoup fait ci ci ci réew mi mérité na ñu dégg tudde ko leneen ni leen ak ay ay ay ay ay ay ay bërëb yu bëree bëri ci réew mi donc képp koo xam da nga dëgg bëgg Sénégal Euh, am yëg yéeg ci Sénégal lii nii da nga ciy kontaan man kontaan naa ci lool lool lool lool moo tax ma def déplacement. occasion la tamit ndax xëy na match de gala dina am ci kanam ci ay célébrité yoo xam ne dinañ jóge fu ne ñëw Sénégal rawatina ay chef euh, euh, d'État alors tey gaynde yi booba tey jot ñu la woon am sa xalaat ak sa gis-gis ci ndam lu rëy lii nga xamante ni am nañ ko fële ne la ca Cameroun yow noo dundee woon Coupe d'Afrique bi ak it tey lan mooy sa message di ko ñaax gaynde ndax it Coupe du monde baa ngi sunu kanam te éliminatoire yi yàggatu. coupe du monde incha allah dinañ dinañ fa dem. te yàgg naa leen wax ni leen Aliou Cissé mooy meilleur entraîneur du monde Sadio Mané mooy meilleur joueur du monde ay at ngi ma koy wax me kenn kenn kenn gëwuma woon. mais nga ko teg mais dem parce que li ma gis équipe boo xam ne entraîneur boo xam ne bu ñu la ko jox ban la joxe équipe ba léegi nga qualifié ko dem demi final qualifié ko demel finale qualifié fois demaat finale dem coupe du monde entraîneur boo xam ne bañ la joxee équipe ba léegi mosoo dellu ginnaaw. Aliou Cissé delluwul ginnaaw liñ koy critiquer lépp li mu nekk sénégalais la rek mais su doonoon tubaab kenn du ko critiquer Aliou Cissé ay ndam rek lay am ay défaitam mën nañ ko compter est-ce que Aliou Cissé am na lu mat six défaites wala cinq défaites amu ko. bëriwul bëriwul défaite ba pare. statistique moom defe nañ ni bi fi Sénégal sosoo ba tey entraîneur gu def li ni mel mosu fee am. lu ko pourquoi sénégalais yi xamoon lool ba pare di ko critiquer moo tax yàlla fay ko lii tey Sadio Mané il est le meilleur joueur du monde fu ñu jaaxlee moo ñu ciy génne. te tout le temps dañ ko daan critique léegi-léegi nit ñi fi mu nii nag leen naan lu sorti am borom mais yàgg naa leen wax ni ñoom ñaar ñoom ñoo yor équipe bi Sadio il est le meilleur joueur Aliou si il est le meilleur entraîneur du monde foofu ma taxawoon falaa taxaw te gars yi fi ñu ñoom ñëpp fekk si nañ ma. li suñu kanam lan nga ciy wax ak lan nga leen di ñaax gaynde yi. ma ni coupe du coupe du monde leen jëm incha allah dóor ale dóor retour. ñu ngi lay jaajëfal. bii di maître Ablaye Wade dóor aller. ale a recevoir Égypte mi ñu dóor ca final. Égypte ñëw fii Ablaye Wade dóor leen retour. pronostic ci match bi aller à retour. dóor dóor rek dóor dóor la rek. duma moom duma la rek. ayul ay pronostic. ñu ngi lay jaajëfal. incha allah jërëjëf.